si fi mu yegg si jàmbaar la as góor la ndaxte tey jii nee naa la Assane ñaare gi ci moom saa bu xëyee yaakaar naa ni luy dugale luy jëmale làmb kanam ci lay dox saa bu xëyee lépp loo xamante su ko defee ci làmb làmb jëm kanam ci loolu lay nekk tey jii da ngay xool buur bi jëlal kereemu <laughs> sponsor bi nga xamante ne ñoom la àndal mm. tey jii ku ma neexoon ci sponsor yi toog mën naa laa waxal ku ma neex tey jii moom mii moom mii toog mën na yéen a waxal mm. buñ ne as ndaw borom du kumaan sànni ne aram faawa ndaw sànni fa ba leen kenn du kumaan koo koy bàyyi. kenn du moom alaaji sàppali doxalal. <laughs> jërëjëf alaaji buur dañuy bëgg rek di kontaan di sant suñu nawle yu baax yi fi ne. Mhm. ak suñu bàyyi tedd yi Demba Codé Pardine maa ngi lay nuyu. sama jigéen ñu baax ñi sama chéri di nuyu champion yi fi toog yëpp bàyyiwuñu kenn. Mhm. waaye di nuyu sponsor bi ndax wolof dafa ni peccum liir bu neexee alaaji buur nday jaatee ca mbagg ya bu la woon ak sponsor yi Dimitri Uba le plus jeune mm. entrepreneur de l'Afrique de l'Ouest waaye it kenn du ñoom waa groupe original mm-hmm. Ndukumaan groupe ah ak euh, ji bu neex bi di Cobra te wuli di seen ambassadeur international mm-hmm. waaye bés bi li ci neex rek mooy dañoo jël ay bés jagleel ko ay gor mm-hmm. Mama Aïda Mbodj bu ànd ak asante bañ jëm ci vingt ans de bool jaadu na yell na. dix neuf ans dix neuf éditions yi ànd na ko ak moom. man de xanaa fekk naa ci lu mat quinze drapeaux. ayca Abdoul Aziz Alé Ndiaye. waaye Abdoul Aziz Alé Ndiaye mi ñu duppee Moulay Abdoul Aziz Al Amin. Uh-huh. moom itamit nekk un acteur de développement. dafa tuddee borom jom bis bi. wala ndeysaan maamam Alima jigéen. Mm-hmm. moo daan dàq xar yi nag yi lépp jiital ko yóbbu ko jox ko sëñ ba Seydi Aji Malick waaw yóbbu ko sëñ Babacar Si mm. sëñ Babacar Si daan ni tourné di ko kenn waxati aalima jigéen nañ ko yox aalima góor ndax gàmm moo ci man doxalal surtout aali kurama jigéen la wax nga dëgg na ko maamam doon doxalee noonu la ñu àndee woon ak moom dem ba ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadoul Bachir ah, mu dàq nag ya riz j'adore thé j'adore ah huile j'adore ñu ànd ak moom dem ci Cheikh Mouhamadoul Mahi mm. moom Mawlana Cheikh al Islam ànd ak moom dem ba ci Cheikh Sidi Mouhamed Kunta ànd ak moom dem ba ci doomi seena ma ñoon Cheikh Amadou Mokhtar fépp fuy këri diine Moulay Abdoul Aziz sagal na turandoom sagal na diine ji yóbbu fa ay xéwal ba ci boppam ngeen bàyyiwul kenn. ayca waaye nag attention Malick Malick. mbay guy gi drapeau Abdoul Aziz Ndiaye. waaye Malick sama xarit. Ah. sama soppe. muy kan doomi nit ku baax. Ah. le grand Kéba Kanté. léegi daf maa woo léegi na ma buur ma ne ko naam mu ne ma sama drapeau bi ma Assane dippee. Mm-hmm. na xam ne que jël naa ko teg ko ci loxo Karim Meïssa Wade. Mm-hmm. jël naa drapeau bi teg ko ci loxo mm-hmm. bépp militant bu PDS. bu la 27 yee. Ah. bés bu ma nee cëpp biir stade danañu xam ne que maître ab Wade xewle. Moussa Ndoye non tiit naa loolu man ta ñàkk. ayca Moussa Ndoye ma ne est tiit. Eh, le requin man ko le requin. taalibe Serigne Babacar Sy bi <laughs> taxawal waaye buur Cheikh Mbacke Gadiaga am na ci drapeau bu rëy moom mu ñu tuddee Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma wallaay ETDR ETDR barki rasulaay waaye combat bi 15 minutes ak sama ñaari champion Moussa jàkkaarloo ak sa mais mbay guy gi yow loo yebee Moussa lan mooy seen problème mbay ñeme nga Moussa Ndoye mbay daje nga ak Moussa Ndoye ci ngénte yi xeex ak moom daje nga ak moom ci mariage yi daje nga ak moom ci gàmmu yi mbay lan nga yebee Moussa Ndoye est-ce que xam nga Moussa Ndoye oh, mbay belle question jërëjëf Serigne Touba jërëjëf yow ñu ko wax Serigne Touba sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm sama ñaari waajur di nuyu sama waa dëkk mhm. waa Réfane susuma nag sama dëkk muy reetoon boox di nayu képp koo xam ne deretu bawol bawol muy daw sa yaram maa ngi lay nuyu di nuyu mbëri bawol yi saal bawol fils de BM fils de Kati ñoom ñëpp maa leen di ñaanal ndab di ñu nuyu sama papa sama xarit Abdou Aziz Ale Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko wax gis naa taxawaay bi maa ngi koy sant di ko gërëm di nuyu sama papa Dieye di ko sant di ko gërëm bu baax a baax a baax aw fayam ñi mandat Abdou Sène Mor Baye Fall Ahmed Lagrose maf gi Baye Laat sama doomu ndey sama xarit ah. <laughs> Ndiabé maa ngi nuyu sama gars daal ñi mandat ñëpp ah. question bi di leen ñaanal jàmm kii sama grand la. mais loo ko ñemee la sa toll nii làmb ju des ay 7 jours. wala ay six jours jarul wax ju bëri. Ah. mbay yaa ngi changé communication. changé communication dina am mhm. parce que ñun. am na lu xew ci diggante bi ay xale lañ. Mhm. dañ doon ne ci làmb di def luñ neex. Mhm. mais dañ am ay kilifa léegi. mu nuy wax dañuy xool baax li wax kenn du ñu yóbbu naa ñoo wax lii wala lii. mbay dafa màgg daal. ñu ngi nuyu wuli sunu garant. Mhm. mais màgg ba doo ngeen safal combat ko jàmm. borom treize victoire original tey original laa sol. maa leen di nuyu père As maa ngi koy ziar baax di ko bëggee. kooku sama papa la sama xarit la. di wax nag maire Alioune Ndoye maire de mhm. Dakar. képp ku di commerçant. maa ngi lay nuyu di la ziar di ko wax waa Sandaga ak waa Petersen sonn nañu amatuñ fu ñu lal. Mhm. marché bi nu tëj Petersen nañ ko ubbi jox ko. ñu laal ci ndeg lalatuñ ci tëli bi ñu ubbi leen marché bi lool maa ngi koy wax Aliou Ndoye di ko waxal képp koo xam ne rek commerçant nga di jaay ah waaw kii sama grand la leen rek laa seq ak moom jox ko cër mais bu war bi suuflee lu mën a am dama lay daan mais mbéy gi kañ kañ la daan joxe nii mbër cër nag xam nga man euh, Moussa Moussa est-ce que amul lu xew ci diggante bi ndax Moussa dafa mel ni bi mu jugee Maroc avant tukki bi mbay zëmbalee na mais bi Moussa jugee Maroc ñëw taxaw aéroport sotte ko sooba mbay ci la changé communication ah, xaw ma lu xew na waaw man xaw ma lu xew na damay laaj du ma saytaane nag damay laaj <laughs> waaw onze billahi min shaytaan rajim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur ñu ngi ñaanal sunu waajur yal na yàlla yeesal yërmande sotti ay leer si bàmmeelam bi fi des muy sunu waajur bu jigéen yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér di ñaanal suma sëriñ sëriñ Babacar si yàlla ñay doo ko ay leeram di kilifa di naan di nuyu kilifa diine ba Touba léew na ñaseen nag ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu ñëpp nag ñëpp ki diine bu fi nekk yëpp maa ngi leen nuyu tamit di nuyu ñu fi teg ñu fi nekk ñëpp assistant yi fi nekk assistant yi fi nekk di nuyu ñu ma àndal ñëpp bàyyiwuma kenn su ma yaay maa ngi koy nuyu bu baax a baax waa kër Seck Seck maa ngi leen nuyu baax jër ngeen jëf ba sunu ma sunu bàyyi Pape Seck maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu champion fi nekk yëpp kaw see maa ngi koy nuyu suma suma suma xarit suma doom day yàlla na ko yàlla defal ndam li ma ñaanal yàlla nga ko am ñu bokk ko jibile ko ci barke alxuraan di nuyu ñu fi nekk ñëpp ah. di nuyu Assane bu baax di nuyu Malick Thiandoum di nuyu buur ñaari buur yi sax waaw di nuyu waaw di sunu baay sunu baay as as as as as ndaw borom du kumaan ñu koy nuyu bu baax sama ñaari baay yi toog maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax wuli ambassadeur Kara maa ngi leen nuyu yàlla na yàlla def ay dara yàlla na yàlla def jàmm wuli waaw li ma waxoon rek cobra bi kenn naan naa ko moo tax mu commencé moo tax mu fecc te ñu doon fecc dama naan naanaat su ma paree nga may ma naan ba doyal waaw bur mu wax non dara xew ci diggante bi mbay zëmbalee na mais bi nga jógee leen lim doon njort non nit moom li mu la def rek fu mu la teg foo ngay tegu rek hmm. waaw jox na ma cër ah man boog dégguma fu ma waxee lu man naqari quoi hmm. xëy ma dégguma ko wax dëgg yàlla jaaxle woo ci loolu mbay guy gi musta bëre mbër jox ko cër bi non non non non non jaaxle ma nag ma yàlla yàlla nattu na ma si dara man mbër moo mën a dajeeg Moussa Ndoye da nga yaru ànd ak Moussa rek ndax lu tax parce que si nit la loolu si nit la musuma ko dégg ma musuma ko dégg ma wax lu ñaaw musuma ko ma wax lu leen maa ngi nuyu waaye rax bu baax a baax. mais man damaa gis lenn. non si waxtaan am na. non c'est que mais dama gis man combat bi. non ñaar ñii dañuy naxante. man dama gis ñaar. waaw Moussa ci biir géew beneen affaire la. Mbaye ci biir géew beneen affaire la. ah la ma gis mu wax ko ci la gis mu ci vidéo yi Assane posté ak ah, lii bokkul. Ah, waaw mais man dama gis combat bi combat bi daf ko jaral jaral la. waaw mais amateurs yi jàkkaarloo ñun di ñu seetaan yaraax yónni la yàkkamti la moom bawal yónni ko yàkkamti ko. depuis trois ans yaraax bëgg nga takk war ngeen wax ne ni doomu aadama yi de. li ngeen li indi li indi doomu aadama yi loolu loolu ñoo koy liggéey. Uh-huh. mooy li ñuy wax rek combat bi combat yaraax la. comme moom man maa ko garant luñ ci mën a séntu ci combat bi. xeex cosaan beeg léppay ñëw. xeex la wax. di ngeen xeex bëri dóor waaw bëri dóor la ñu wax mais nawuñu bu bëri ba sa loxo bi métti nii sax non sama loxo méttiwul de ah. ko band ko mais di ngeen ko safal ah. dina saf combat bi mën nañ cee jàpp loolu léppay am xeex léppay am léppay am léppay am incha allahu rabbi ci lu mu war a jeexe na loo gisul ci bëri lay jeexe mais mënut a jeexe ci xeex ah loolu yàlla moo xam. mbay foo yaakaar ne combat bi war a mën a moo xam. maa ngi nuyu Cheikh Thiaw sama doomu nday sama xarit. maa Lambaay Mor Diouf Jib Seen. maa ngi nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi siin sama gars yi. commerçant yi nga xam ne dañoo dem siin ñoom Dame Cissé. Laat maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. waaw tëmbal glace gi lu ko waral di nuyu waa Ritres Medina man Ndakaaroo may topp ak Bawal. waaw feer nag d'être bawol bawol ah doomu bawol laa waaw teg ci doomu ndakaaru hmm. maa ngi nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi ndakaaru fukki pénc ma ni waxal ci combat bi di nuyu Médina 1 ah. ba 45 boo yëpp a ngi waaj combat bi père ah, kii man ak moom suñu combat jarul wax ju bëri ah, lu tax kii bu arbitre soufflé na daw taxaw fële ah bu arbitre wàccee loxoom arbitre bi na soufflé rek daw taxaw nee kii maa ngi moom duñ bëri juróomi minute bu taxawee da ngay ah, da ngay yaakaar mu daw. non daw mënta am mën na def ay pexeem wër-wër loo yi mais man grippe lu mën a am. mbay guy gi est-ce que xam nga. waxtaan bi noo góoma de. maa ngi lay reposer instant question boobu. mais dafa mel ni bàyyi wax xel li may wax. ñun bëree nañu léegi su léegi ñu dugg ci suñu ñaar fukki combat. Mhm. xam ne lépp stade lañ ko bëree ñun ay làmb jaaxalatuñ. mbër moom expérience ngay bëree expérience ak yooyu amul. mais xam lu fi am. Mm. liggéeyal gëm sa bopp. doole li ne ci yow nga gëm. da nga jàpp doole bi nga ko gisee. loolu ëpp doole ak yooyu loolu bu ñu jàppandee. xoolee da nga gëm ni mbay ko gi yaa ko ëpp doole wala ëppoo ko doole. te dañuy mm. daje Hmm. bu ñu dajee dina neex dina. Moussa Ndoye jàppul tar. non non loolu nga wax noonu. dama ci dama ci dañuy daje. mbay dafa dafa dafa jël combat bi ko ci cinq minutes man góobu ñu àgg cinq minutes. ah loolu loolu passé na man man maa nekk nit ka nga xam ne lu ma romb rek romb naa ko li sama kanam mooy mbay gi moo ne sama kanam. mais nee na gëmul moom combat bi mat cinq minutes. man mii di wax gëmul mat cinq minutes. waaw lu tax dañuy daje. Hmm? bu neexee yàlla dañuy daje. bu ñëwee nga ñëw bu ñëwul nga ñëw. non dañuy daje moom daje moom am waaw dafa am nga xam ne man nit si sa wax rek laa man li ma wax li ma wax rek dama koy def. Hmm. dafa waat ni day day ñëw ma gëmloo ko ko damay dañuy daje. Mbaye Gueye ku mës a jàpp jeex waaw ma waaw waaw ba ba booba. mais vingt ans yu bawal. waaw vingt ans de bawal man. attends vingt ans yu bawal. waaw jox ko micro vingt ans yu bawal ñu tuddee ko ñu tuddee ko Abdou Aziz. bu Alaaji Aale. ñu tuddee ko ku mag. lépp làmb la vingt ans di ci lépp di làmb. Assane Assane ak Aziz ñoom ñaar booy seet bawal. Assa Aziz Assane Aziz Ndiaye dafaa teg benn tànk. Mhm. parce que waajuram di ko jur muy Khoudia Diop. Mhm. boo boo demee Bawol fekk ko fa ca la bokk. Mhm. bis boobu nga koy bëree dayo bi. ci mobilisation fan ngeen ci toll. bu neexee yàlla dinañ ko indil lu mu bëgg ci mobilisation. ndax xamul tax drapeau Aïda Aïda Mbodj ah. Aziz Ndiaye non drapeau Aïda Mbodj ci boppam. maa bëri naa ko bisoo la ma tuddee ndaanaanu ndaanaan. ah. maa ko reporté Lamine Malick Thiandoum maa ko moo ko reporté kon tey mooy li ñu wax rek. ñi nga xam ne ñoo war a feesal bis bi. monsieur le maire Babacar Mbengue. honorable député Mbengue Mbor. DG Alsane suma rek suma xarit suma frère suma lépp. Mm-hmm. Ahmed Dramé. moom mm-hmm. Saliou. Mm-hmm. maa ngi koy woo di waa Île de Saloum yëpp ah, pour ñu ñëw. waa Ndiosmone Fimela yaayam Diofior di waa Simal waa Ndangaan waa waa Marloj waa Mar Fafa Mar Saloum waaw di waa Gambul di waa Joal waa Palmarin. di woo waa Kaolack di waa Kajoor waa Ngaye Mexe waa diaspora bi yëpp maa leen di woo di woo Serigne maa ngi koy woo di woo seen Sène Abakara Cerno Wakaana borom États-Unis Mansour borom Mansour borom États-Unis maa ngi koy woo tamit baax a baax baax di woo Omar Omar transitaire Ablaye borom ti borom États-Unis di woo Teranga waaw di woo Laay Laay Turki di woo Mamboy sama jigéen waaw di woo sama Mamboy Kan sama jigéen di woo Pape di moo Modou Kébé saa Touba sama xarit sama gaañ di woo sëñ Abdallah Diouf maa ngi koy woo tamit Adama Ly borom impédiment ak Pape Diouf maa ngi leen woo di woo Keba Kanté suma xarit suma frère suma lépp mu nekk bisam boobu drapeau bi nga tuddee man sax dama waroon ñëw participer si incha allah rabi dinaa ko ci feccal ba ma xam ne naa ko si moom Keba Kanté di woo nag ñu baal ma si ñu baal ma si tur bi jëmil nuur laa doom ndey saa Touba waaw maître lay seen maa ngi koy woo Aliou Fall Keba maa ngi woo Keba Kanté waat di woo Maguette Seck di woo Maguette diwoo di woo borom mari Maguette Seck borom maris El Hadj Daouda maa ngi koy woo ak Xaali Dieye capitaine Yaraax yëpp jël nuyoo bi yëpp tekk ci loxo Babacar Tall mhm. waaw di woo Xaali diwoo ñëpp tamit alsaan DG DG Alsane Thiam maa koy woo bu baax a baax maître Wele maa ngi koy woo diwoo woo bébé Sëy doomu maître Sëy mhm. Ousmane Congaan maa koy woo di woo Ndongo Fay Pape Diouf borom canal Adama Li maa woo di woo la jàll Kët maa woo bu baax a baax Bawol Bawol yëpp maa ngi leen woo di woo waa Gagny monsieur le maire waa Gagny Gueye monsieur le maire di jaale seen xalifa xalifa Gagny Gueye gi di leen ñaanal waa Ndiassane di waa Bakku Bakkuli di woo waa Makan Baas waa waa Ndiagane di woo ñëpp di leen wax sama xol sedd na di waa Kër Mbaye Fall fukki penc ak ñaari bàyyiwuma kenn le maire Babacar Mbengue le maire monsieur le maire Babacar Mbengue di woo DG sama xarit moo fa nekk. temps ngi dem nag. di waa Yarax ah, ah. per ah, per ah, combat boobu uh-huh. waaw waaw kon de dinaa si am. émission bu neexee yàlla bu di woo waaye rajo fan ci club bi nga xam ne fan ci club Moussa Ndoye. maa ngi nuyu sama papa sama xarit Abdou Aziz Aly Ndiaye koo ko xam-xam kook man. waaw ragal péete nag day xañ a wërsëg. Mm. sa waay woon na ko di ko wax ay affaire mu ne ko mais sama booy ngay bëreet. Mm-hmm. teewul nag dinaa non woo ma ko woo ma ko. non defal ndànk rek bi nga ko mm. demee Gambie di génne sarax xar mu weex. non non woo nga ko bëgg mu motali la. non déglu ma rek waaw déglu rek. du lu ñuy toog ci télé. wala bu fekkoon dafa am ah, sax su fekkoon dafa am. boobu déglu ma rek fekkoon dafa am non dañuy waxtaan dañuy waxtaan dañuy waxtaan bu fekkoon non bu fekkoon dafa am. xam nga mais Aziz Ndiaye moom kaay ma man la non dama la wax rek mën na la la jox téeméeri junni man mu jox ma 2 millions. waaw amul amul problème parce que yaa a xam ragal waaw rek dama la koy nuyul baax a baax a baax a baax a dama la koy nuyul de ñun dafa am suñu papa boo xam ne yaraax la dëkkoon am fa ay doom ay doomam ñu nga fa ba léegi dëkk suñu biir dëkk reefan boo moom xam na ci dara am na suñu mbokk boo xam ne moom la bëggoon takk. moom Moussa Ndour. non non ah, ko demal ah, dajale ji li nga xam ma. mbay mbay mba. non déglu nag dama lay wax laa lay wax. non déglu wax laa lay wax. maa ngi lay wax wax. am na foo njëkk a dem bëgg soxna déglu rek. mbay saa bi nee na demal jox ci waaw demal jox ci kanam. mbay maa ngi nuyu nag. képp ko déglu rek may ma tuuti maagaleen maa ngi nuyu sunu maire maa ngi nuyu sunu maire maire de Réfane Djib Thiaw maa ngi nuyu maire de Réfane Djib Thiaw maa ngi nuyu maire de Réfane Djib Thiaw di nuyu Amet Gueye sunu maire sunu xarit di ko wax mu jàpp ci weex bi sunu papa Daouda Sarr maa ngi koy nuyu bu baax di ko wax mu jàpp ci moom am na sunu papa Barajon nag mention spéciale di wax képp kuy jàppale mbay guy gi rek maa ngi lay ziar di la bëggee di la ñaanal jàmm di nuyu képp ku naan yokkal ma jaay di nuyu it képp ku deretu bawol bawol daw sa yaram maa ngi lay bëggee di la ñaanal jàmm. Moussa. waaw fépp foo dug dug naa fu ko raw. dëgg la lépp loo gis ci àdduna yàlla xale la ciy ànd te man dama di xale te dafa am ñu topp sama ginnaaw. waaw yaa may dégg. Mhm. yaakaar ma gëm ma am lu ne sama ginnaaw balaa nga cee xam dara nag. bu samdee. di nga ne booy bi lii est-ce que mën naa ne. parce que àddunaay waaj combat bi dereti bawol bawol ñu muy daw seen yaram ñëpp a ngi waaj kombaa bi waxuma nag daw laa ko mbay loo waaj waaw loo waaj rek loo waaj waaye rax yaa ngi laaj mbay déglu ma li nga bëgg a dégg li nga bëgg a dégg mhm. fu ma la jàpp lamb ji la jàpp lamb ji jeex barke Maam Seera loolu wax c'est faux Moussa bu dee bëgg nga bëgg nga dégg dëgg Serigne Salim Mbacke bu ñu jàppantee nga xeeb sa bopp barke yàlla mu dëgg billaahi wallaahi bu ñu jàppantee nga xeeb sa bopp Moussa yow yow da nga naan say affaire rek ñëw taw bu ma la jàppee di man du ma jàpp nit muy rëj tëj. waaw bi dina bul dem ci wetu saako nag di fa bëri. ba xawal ci digg bi ñu bëree ma jàpp la daan na leer mbay di ko tëdd mosuma niil ci lam mosuma wër-wër loo mosuma yàggal combat da ngay tëdd ci kattanu yàlla bu arbi suuf lee sa kaw da ngay tëdd da ngay tëdd lu leer laa lay wax maa la bu doole maa Seexul Xadim loolu nga amut te bu arbi suuf lee nga xam ne doo dërëm lijjantiw ma la sax. non maa ngi négocier boobu ba léegi. non négocier woo. négocier nag barke gën a saf. na saf na métti. waaw la maa la ba maa la mën. xam ne lépp dëgg. waatal rek dama ne la xoolal. ñu ne sa ginnaaw di la. li la bëgg déglu. waaw xale yooyu ne sa ginnaaw déglu. waaw sa ginnaaw déglu man may déglu nga bëgg dina am. xale yooyu ne sa ginnaaw di la cuq. waaw barki Serigne Bamba waxuñu la dëgg. koy cuq koy cuq non ma tudd tur bi mais dama la bëgg a xamal ne ñooñu ñu àndat wala ñooñu xam dara ñu bëree ba pare. buñ bëree ba pare ci ngay xam booy bi te yow xax fi mu ne nii nii. respecté nga ma yow sa bopp respecté nga ma xam nga di boo wéetee déglu ma rek boo wéetee génn xool dugg roq jégaat nga xam ne ki nga am am nga ngan di combat non yow yaa am combat bu rëy rëy rëy rëy kii nga am du caaxaanu ci lam fooyew ma ko man man sama man barke sewaay mag mu yow nga dem ba ñëw naa waaw loo nga yaakaar dama man mag mu dem ba ñëw xale bu loo nga yaakaar mbay loo nga yaakaar arbitre bu dee bir sa kaw laa jëm te billahi moo la jàppee lamb jeex merci beaucoup ñu bëri loo merci mais cinq minutes cinq minutes mënoo ko billahi maa dàq bëri maa ko bëri lépp dëgg la alxuraanu kariim Europe Bamba Fall maa ngi nuyu maire de Médina Bamba Fall maa ngi nuyu maire de Bamba Fall bu baax Bamba Fall suñu waay la suñu maire suñu xarit maire Médina maa ngi nuyu waa Médina 1 ba 45 bàyyiwuma kenn Marème maa ngi koy nuyu sama jigéen sama merci nee nañ ma heure bi jot na de heure bi jot na waaw 23h45 képp koo xam ne rek yaa ngi bëgg mbay guy gi affaire yee gàtt maa ngi nuyu nag waa Lamp Fall parking maa ngi nuyu ku ci mel ni Balla mi nga xam ne moo jiite parking bi ak laay parking ñooñ bu ma bëree ba pare dañ ma dig oto Balla ak Laay maa ngi leen di ziar bu baax waa Lamp Fall ak ñoom Lamine Golo. merci beaucoup maa ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. merci beaucoup Soro Malick Soro Malick Soro bu yaraax moo mën ci par choc ci àdduna. Soro Malick sama booy bu la jàppalee par choc nga waaw. kon maa ñu toog sama euh, merci beaucoup ñu tàggoo. su ñaari bàyyi ma kenn lu ko dalee yaraax Kër Mbaye Fall Barñe sendu minam ndaayaan gërëw bàyyi ma kenn képp ka nga xam ne askanu lébu nga rek doole lébu nekk deretu lébu daw seeram di woo waa Dalifort waa Cité bàyyi ma kenn di woo waa Bassar ak waa Bassoul ñoom ñëpp maa ngi woo di woo 22 yi yëpp bàyyi ma kenn kenn kenn bàyyi ko suñ Babacar Prince jantal Mara maa ngi nuyu baax di nuyu Fall ak papam di nuyu ñëpp nag bàyyi ma kenn waa Touba di nuyu surtout waa Lay Ñaar jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci sama ñaari champion a baax ñu toog sama ñaari champion loxo Mansour Mansour na mënul ñëpp le 27 hmm. du yomb jërëjëf allez on a 5 euh, minutes pour rendre l'antenne ci yaatal bi waaw ndaxte ñuy euh, ñuy santaat yàlla di julliwaat ci yoon tam bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam hmm. di wax ni bis